à la dépénalisation wala criminalisation de l'homosexualité ils l'ont brandi comme euh, euh, motif de campagne jàpp ne yéen bu ngeen fi toogee xëy na loolu ngeen di gën a dëggal Ousmane Sonko yaa ko dénoncé une fois au pouvoir mu recevoir Mélenchon yu bëri jàpp ne dafa xaw a évoluer dans sa position ban gis-gis nga ci am benn ñaar aussi assemblée nationale cette question euh, Bara Dolly neen dina ko teg sur la table ndax vous député de Benno di ngeen ci voté ngeen ko voté pour criminalisation. ba bu ñëwee on on va discuter mais ñun on on avait on, en tout cas li ñu mës a wax mooy loi bi déjà tey am na déjà lu nekk ci loi bi loo xam ne permettrewul koo xam ne homosexuel la. Mhm. góor jigéen ñu gis la ngay poser ay acte góor jigéen acte contre nature. Mhm. entre deux individus de même sexe loolu moo nekk ci texte bi. buñ la gisee dañ lay jàpp tëj la. Mhm. donc am na déjà assez fort vous pensez déjà ah, ah c'est déjà très fort mhm. cest dire que tey texte yi il faut que tey ñu xam texte de loi yi li ñu am ñun en tant que député il faut que ñu leeral ko mhm, doomu Sénégal maanaam tey Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ci seen ci ci ci ci constitution bi dañu bind que ñaari góor wala ñaari jigéen mhm. yu ñu gis ñuy sëy dañ leen di tëj loolu mi ngi ci mu ngi ci taxi yi mm. maintenant li ñu waxoon mooy loolu duñ ci dellu ginnaaw mukk mm-hmm. xam nga mën nañ ko renforcer mu gën a dëgg xam nga discussion yooyu xam nga discussion yi bëri yi yi yi euh, ñiy jógee extérieur di wax mooy wax pour ñu dellu ginnaaw ci loolu mm-hmm. donc ñun dañu ne en tant que parlementaire loolu duñ ci dellu ginnaaw mukk léegi suñ ko mënee yokk ñu yokk ko. Mhm. mais dans quel cadre et cetera loolu ay waxtaan la loolu ay waxtaan la am na ñoo xam ne dañu bëgg ñu criminaliser ko. ñoom c'était leur combat. maanaam ñi nekk au pouvoir tey. ils avaient bu ñu faloo li ñu njëkk def mooy assemblée nationale dugal proposition de loi boo xam ne dafa daf koy kii. wala projet de ñuy wax sax ça vient de l'exécutif. bu projet de loi mhm. bu amee proposition de loi dañu koy càmbar comme j'ai dit projet de loi bu mu munti doon en tout cas. wala proposition de loi bu mu munti doon. Mhm. li muy proposé warul gën a tuuti daan yi. Euh, l'assemblée ne doit pas faire moins. voilà ce qui est déjà là mhm. munul daan ci góor jigéen. mënul gën a tuuti li ñu proposé. parce que góor jigéen xajul ci réew mi. ah Sonko nee na c'est toléré. ma ma ne lu leer laa wax man xam nga en fait ñu ngi ci bu ñu personnalisé. mais oui c'est c'est grave naa. xam je personnalise pas. oui mais c'est important dans son cas parce que dafa dafa yàgg xeex en fait donc bu ñu tey ne c'est toléré yow nga ne xajul ci réew mi seen wax waroon na carrément li nga wax mën nañu ko dégg yow. non non non dama dama ne tey Sénégal taxi taxi li ñu wax déjà. Mhm. teg de côté mbirum góor jigéen taxi. li ñuy mhm. wax déjà teg na de côté mbirum góor jigéen maanaam boolewuñ leen ci réew mi. c'est-à-dire bu ñu bu ñu bu ñu defee loo xam ne naka sudul noonu la dañ leen di jàpp maintenant lépp lu ñëwati assemblée su ñu proposé wul lu gën a tuuti loolu su suñ proposé loo xam ne daana gën a tuuti loolu ñun dañ koy ñun dañ koy daax bu ñu proposé lu gën a diis nag dañ ci waxtaan xool techniquement est-ce que, y a pas moyen avec cette assemblée que l'homosexualité gagne du terrain. mënul nekk loi yu ni mel. nekk mënul et je pense que 165 députés yëpp d'accord nañ ci loolu. Mhm. parce que ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ. Euh, ñun ñëpp euh, li ñu tax a jóg mooy Sénégal ak suñu aada ak cosaan. ak euh, ak suñu valeur ak diine. Mhm. donc yooyu yëpp moo ñu tax a jóg te ñu ngi ci ñu ngi ci avancé maintenant personnaliser des choses. kii wax na lii kii wax na lee. man man du ma ci logique boobu yéen. non man nekkuma ci logique boobu non man man mosuma nekk ci logique boobu. xam nga man. Euh, mais le pouvoir euh, l'opposition bokkul aussi. non xam nga xam nga ku si nekk sa style. Mhm. li nga ku si nekk ak sa style. c'est man kenn mosuma dégg. ci yooyu c'est vrai. ci yooyu man même. débat yu ndaw yi temps yi temps yi nekkee mouvance présidentielle. man musuma dugg ci débat di wax la ça m'intéresse wax dëgg yàlla musuma intéresse ça fait vingt trois ans mais c'est que pour le cas présent par rapport au propos de Sonko euh, mën na ubbi benn brèche pour que voilà ñu xalaat parce que quand il dit que c'est euh, ñi doon jàpp ne xëy na dafa dafa dafa am reculade par rapport à sa position antérieure. non moo tax ma ne yaa ngi yaa ngi personnalisé moom xëy na dina dina dina dina. dina préciser sa pensée dina sa du ma moom <laughs> donc moom buy préciser pensée dina wax mais bu fekkee ne da nga bëgg man ma wax loo xam ne man xaw ma les tenants et les aboutissants par exemple ses propos mm, non moi je suis pas dans ça man je suis dans le fait de dire man li ma xalaat ci sujet bi mhm. lu keneen wax moom la engagé man Malick Diop lu ma wax <laughs> lii la ma engagé li ma fi wax yëpp man la engagé mhm. li keneen wax man vraiment musuma intéressé depuis que je suis en politique